ci sous-préfecture bu Ndam amal nañu cérémonie de passation de service di weccee lenge diggante Mansour Diallo mi nga xam ne moom moo nekkoon sous-préfet bu Ndam ak Ibrahima Boubacar Mar moom mi nga xam ne moo ko wutu ci ndaje mi la nag dajale woon ay kilifa yu bëri yi nga xam ne ñoo nekkee ci bile diwaan sous-préfet bu Kayel yeneen i maire ak yeneen i autorité administrative yi nga xam ne jotoon nañu teew ci noonu ci la Matar Diop di préfet bu Mbacké daal di yëkkatee kàddu gannaaw kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko moom mi fi nekkoon sous-préfet bu Ndam di Mansour Diallo kàddu nga xam ne liggéey na ko ci dëkk bu bii di Touba bi la yoon nag muy dem retraite ay kàddu yoo xam ne yëkkati na ko ngir gërëm askanu Touba waaye gërëm itam njiitu réew président de la république Macky Sall ci mission bi nga xam ne dénk na ko file ci dëkk bu sell bii di Touba ci décret numéro 2020 15 02 bu juróom-ñetti fan ci weeru juillet 2020 njiitu réew mi président de la république Macky Sall daal di jël dogal nag moom Mansour Diallo moomee Ibrahima Boubacar Mar daal di koy wuutu file ci sous-préfecture bu Ndaam ràññee ko lool gannaaw nag ba mu amee baccalauréat série C prime gannaaw atum 1998 ci mention bien am itam maîtrise ci lettres modernes ak mention très bien laata muy dugg ci école nationale d'administration jotoon na jaar nag ci arrondissement bu Kayel nekkoon ci arrondissement bu Thiès Sud Ibrahima Boubacar Mar jamono ji moom ma nekk su préfet bu ndaam ci dëkk bu sell bi di Touba.